aywa yéenekaay group groupe Futur Média la ñu jeexalee euh, ñu doore ko ak euh, l'observateur observateur tey euh, mu dikkaat rek ci local yi local en cassation lako ko dippee veillée d'armes au sein de l'administration territoriale les préfets de Pikine Kaolack et Vélingara parlent loolu la ñu mën a gis ci xët bu njëkk mu ànd ak nataalu président Macky Sall donc mu aju ci local yeeg coowal préfet yi ak itam mbir mu mel noonu gis nañu itam euh, ci yéenekaay bi l'Observateur muy entretien ak euh, professeur Sakho euh, moom nag ñëwaat na wax rek lu jëm rek ci mbir moo xamante ne si mi ngi noonu mu ne serait impossible de vouloir faire de l'ARTP le gendarme de tout loolu la ñu gis gis itam ci mbir mi di l'Observateur Simon Kouka xam ngeen ne dem bàyyi nañ ko bàyyi bu néggandiku ndax nee ñu yaramam wérgu yaramam moo xaw a jaga di ca yooyu jamono moom di fàttali ne kilifa ba tey ma nga ca loxoy leneen itam lu ñu nemmeeku moom it xam ngeen ne ay mbiram juróom na fi coow euh, muy Miss euh, Sénégal 2021 dafa mel ni euh, demul ci cérémonie ba ñu di indiwaar rek coow loo xamante ne si am na ci Miss Sénégal 2020 pardon ak comité d'organisation kon ki ngeen di gis mooy Miss Sénégal 2020 absence absence am maanaam ñàkk a teewaayam ñàkk a teewam ci Miss Sénégal 2021 l'observateur ñëw na ci wax lu gën a leer lu jëm itam ci wàllum mbuxum ak bu xaaba ñu ne euh, femme d'affaires bi moom daal euh, rek euh, dem na seeti ab njabarkat ngir rek daal di am daal wala bokk maire ab Géejawaay di Aliou Sall jox ko nopp bu baax bi yaakaar naa mënees na ko waxee noonu leneen itam muy lu jëm ci wàllum fitna ak soxna si nga xam ne daal dem na bay tëkku waajuram bu jigéen ngir rek daal waayam ñëw ca kër ga yooyu yëpp mu ngi ci l'observateur ñu dem ci record bàyyee ko ak Cheikh laata ñuy tàggoo aywa aywa Cheikh may ñu ci record bi. waaw record euh, dikk ak ñun ci euh, maanaam euh, football ak chapeau yi nga xamee ni xam nañu ko léegi leer na. ci éliminatoire coupe du monde de Qatar 2022 chapeau 1 bi Algérie Maroc Nigéria Sénégal Tunisie 2 bi Cameroun Congo. Mm-hmm. Égypte Ghana Mali. Euh, mu mel ni nag am na ñaari affiche yoo xamante ni fësal na ko. muy mm. Sénégal Mali. Mm. ak Algérie Égypte di ay derbi yoo xamante ni. Mm. Euh, probabilité la du mu mën a nekk ci euh, tirage au sort on ah. tamit ci wàllu làmb ak Bombardier dikk tamit ci Pays-Bas bi nga xamante ni qualifié na démb. ak stade bi nga xam ne moom la ñëpp di xaar jamono ji mooy stade du Sénégal. Ah. xam ne nee nañ travaux pare na à pour cent. jaajëfatee merci beaucoup Cheikh Tidiane ci record foofu la ñuy matinale 9 jot na ba tegal juróom-ñaari simili euh, El Hadj Malick Cheikh